سوف فتحنا باسم فتح لفتح الخير عنوان سكرنا العسل تكوح ابناه بإجلاله وصلينا لخوتك وحبيب الله بإجلاله وصلينا بليل حبيب الله بإجلاله صلينا وسلم على من لم يكن لنا ملكتم أدين سكرنا لا سند بچا مدینہ رسول اسمه احمد رسول تروا مئ أحمد نبينا سلب جمدنا رسول دروا مي أحمد صلى قليل القلب عسى nga xamante ñoo daje fi ñu ngi nuyu ñëpp di santé ñëpp daayira bi nga xamante mo organiser fi ñu ngi leen di gërëm di leen sant kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ñaanal yalla yalla dolli seen fan kon nak bu ñuy commencé ñu joxe ñaan rek ñu def fatiya falaxi ak nasi juróom-ñeenti yoon yàlla tiif ñu tëjee ko salaatu fàtte yi wala salaatu bu waay jàppandi rek yàlla def ñu commencé ko ak jàmm yeggale ko ak jàmm yàlla def si xéewal képp ku fi indi jàngara yàlla ko yàlla yàlla na ko yàlla wéral képp ku am aajo yàlla na ko yàlla faj ñu dëxal lépp si biir lépp man nag bisimilah. bisimilah mina seytaan الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di leen baal di ñaan yàlla nañu yàlla boole jéggal ñu njiital ci nuyoo bi daaira mutahaabina fillaahi bi sayid muhammadin al mustafa si al amin ñu di leen ziyaara ziyaaru tëbbu fa tabaarakallaahu di leen ndokkeel ci bés bi di ñaan yàlla bu mu doon mu suñu mujjub daje fa tabaarakallaahu di nuyu imaamu dëkk bi di nuyu ñi ñu wuyu si di ci jiital suñu kilifa boppu imaam Issa Lo imam de la jeunesse fa tabaarakallaa mu jóge ko ba Kër ma saar ngir jëmm yàlla bés bi àndanteeg suñu mbokk Pape Siré ak Maxa yàlla dogal na talaata bu jot këram lañuy daje waxtaan waxtaanu diine bu ñu paree génnee reer yi reer ba suur jël kurus yi séddale dog yi jubluwuñ ci lenn lu dul ñaanal maam Seydil Hadj Maay Si radiyallaahu anhu talaata bu jot ñu def ko këram kon fa tabaarakallaahu loolu yàlla bu mu niil ñuy nuyu di ziar itam waa kër yonent bi sama mbokkum bopp ab lay Mbay ak gars yi mu àndanteel yëpp ñoo ngi leen nuyu di leen ziara di ci seppi xumma xumma baaxum moom itam Ousseynou xumma di jàmbaar ci jàmbaari sëriñ Babacar yi yàlla yàlla dolli sutura si te yaatal yaatal mbir yi baax baax di nuyu itam suñu tonton Ousseynou Ndiaye moom ci ñi ñu dara jaale bés bi ci la bokk ku ko xam-xam ne ñayu xare la ci kër Seex Sëriñ Mouhamed Moustapha ñoo ngi lay yéege sa yéegu waaye di la ziar di ziar góor si ndax itam ci ñi ñu tuddee bés bi la bokk di ziar Maguette Diop le grand nabien tabarakallahu di nuyu nag sama magu bopp Mamadou Niang moom itam ci ñi ñu dara jaale bés bi la wax ñoo ngi leen di ziar yal na yàlla fay leen yow arab yi dañuy wax ne ku yokkul rek da ngaa wàññi te li misli haza fal yaamalil aamiloon ku ne li nga am moom ngay duggee marché bu ngeen nekkoon ci beneen kuréel di ci yëngu amaana leneen lañ leen di tuddee mais ci tànt yoon ci yàlla muhammad lañ leen xamee kon dafay jaar ñu tuddee leen ko delloo leen jukkal wax leen jërëjëf may ziar nag kii ma féete ndeyjoor di sama mag oustaz Mamadou Ndoye sama seexu taalim la bëri na lu may wax gaay naa ah oustaz Mbaye moom tabaarkàlla ñu bari dañoo foog ni man Tiwaawan laa jàngee man leen jàngewu ma Tiwaawan Mamadou Ndoye mooy dem Tiwaawan di rooti di ma duy mu ngi nii nag fa tabaarkàlla ñoo ngi koy ziyaara di ko ñaanal yiwu yàlla bi mu ma woowee ni ma damay ñëw damaa tiit sax yàlla xam na ko ma ko yow teggiloon na la lepp dembu nga Dakar tay nga bëgg a jógewaat Tiwaawan ñëwaat Dakar mu ne ma yow faw nek dina tok sa wet inshallah taala kon loolu yalla bu mu niir may ziar nak jigéen sëñ babakar yi ñi nga xam ne ñoo ronu tante bi sëñ babakar si radiyallahu anhu wax ni jigéen ñi ñoy pendal yu gën tubay ndax dafa daan wax ni mbolam ndawi kesse doyu ñuma mbooloo yi kese doy ñu ma mu ne mbooloo jigéeni kese doyu ma waaye mbooloo góori kese doyu ma ñu ne ko ah si kon ban mbooloo moo la doy mu ne mbooloo moo xam ni góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi dañ cee ànd di doxal looloo ma doy mu ne bu dee ndaw ñi danañ am xel mu sell maanaam danañ am doole jun jëfee waaye xel mu sell mu ngeeg mag ñi bu mag ñi tëralee plan ba war a doxal duñ am doole duñ ko doxalee ndaw ñi am doole nag nañ ñëw doxal mu ne jigéen ñi nag kenn mënul dem bàyyi leen ginnaaw ki njëkk tuur deretam ci lislaam soxna la kon ñoom fa tabaarakallaa bu sëñ Babacar ñëwee séddoo leen buñ leen fekkee ci tànn dañ leen di wàcce seen wàccuwaay yàlla bu yaakaar gi ñu ko yaakaar tas mukk te du tas ba ilaa yawmi daayira bi nag dañoo jëloon tem ne dañuy am yéene waxtaane melokaanu taalibe yan melokaan la taalibe tiijaan bi war a am rawatina ak taalibe maam Cheikh Sidi Hadj Maay si radiyallahu anhu ndax mag ñi dañ ko ni ah si bàyyi diw def na nangam Sidi Hadj Maay dañ ni ko sëriñ diw def na kiraama sàngam sëriñ diw def na kiraama sàngam sëriñ diw def na kiraamu sàngam seen njaboot ña kay koy bàkkoo nag ah si ñu bëggoon nag yoween nga def mu dal ba yàgg ne leen ah nangul naa leen li leen yàlla may waaye nag nañu jur ba fi Malick jur ba fi bu ñu màggee jamono àtte ah mu ne nañu jur ba fi Malick Fa du jur ba fi bu ñu màggee jamono àtte xamuloo ne jamono du wax waaye bu la tontoo rek bu àddoo ñëpp xam ni tontu na si daxaaj maay la yàlla nattoo bokk na ci ay ngëneelam juróomi bant yi gën siw ndax dégg naa ci benn mag mu ne Sidi Hadj Malick rob na ñaar fukki doom ca njarne mais ñi gën a siw Sidi Ahmad si Sidi Aboubacar si mam Mansour si si sëñ Abdul Aziz si ak sëñ Mouhamadul Habib juróomam yi gën a siw kenn ku ci ne mat nga sëkk seesu xutbaani ba noppi bokk benn benn jamono Sidi Hadj Maay la yàlla defal loolu Sidi Hadj Maay génne ci jàkka doomam Sidi Ahmad génne ci jàkka mbooloo mi topp Sidi Ahmad muy ëpp mbooloo mi ko topp <laughs> bu gaa yi rang di ko di ziyaar yi seen xaaj mu ne moom du ci bokk e kaay ziyaar góor gi mu ne déedéet du ci bokk mag seen sëriñ ñoo bokk sëriñ maam alpha ko jox maam alpha ma jox bu ko xaal mësaana dikkal dëgg dëgg dëgg dafay tëdd jaaxaan jàkkaarlook asamaan lu mu wax lu ne nag bindal téere ah moo tax mbir yaa ngi ca gannaaw mbir ya bul jàng rek jeexal téere yi nga yaakaar ni yow nag léegi kaala wala war déedéet am na leneen loo xamante si xaqaa'iqul xëyb waaw kay loolu nag dafa am ñu ko ñu ko yàllay jagleel maam Seexul Xalifa radiyallahu anhu di rakk ci Sidi Ahmad si boobu mu judd en 1885 ci la Seex awu Aboubacar si gane àdduna ma nga juddoo ca dëkk bu ñuy wax Ndar waaye juddom dafa am lu ko mandargal dafa am lu rëy lu mandargal ni sëñ Babacar mii judd mi mbir la ndax mu ngi tombeeg Seydi Hadj Maye radiyallahu anhu dem waalo ci dëkk bu ñuy wax nombo nombo àllarba wala nombo sànjëri ca garabu Dakar ga mu toogoon doon taalif téere bu ñuy wax wasilatul munaa di bàkk boroomam ci mboolem asmaullahi alxusna yi mu am di julli ci yonent bi salaay sallama salaatu bu mu daaneel rek indi beneen ba mu yegg fi muy taggee yàlla naa ko rabbun tabaaraka aw rabbun taxaddasa aw rabbun taala rabbi allahu fa lañ ko fekk jox ko ab lettre ni ko soxna Roqaytu Njaay yeweeku na indi na góor mu ne a ah kon Ababacar a ngoog kon nag mbir a ngoog mu ne kon Ababacar ngoog jàppal tur bi juddu bi dafa tombeek téere bi muy benn miracle kon sëñ Babacar moom buy seex du seexandoo ak Ousseynou wala Assane moom Taysiir la seexandoo la moo tax mu daan wax ni fande reer moo ma gënal fande Taysiir fande reer moo ma gënal fande Taysiir te Taysiir bokk ne ci téere sirxaay yi nga xam ne ku ko mokkal seexal arama safara xam nga tax waxuma ne moom parce que moom Maodo de def ci cee dëxëñ 99 turu yàlla yi te loolu ku mu nekk sa dënn sa yaram araam na safara mu maase ak taysiir si daxay maay bind taysiir baatu yàllaahu yàllaahu yi di defile ci biir téere bi yàllaahu yàllaahu ba muy 93 fois baatu rab bi ak rabbanaa boo compté 34 la lay jox te chiffre 34 waar daara ji <laughs> ñoom ñuy féete Tiwaawan xam naa ni moom dinañ ci kii ab baatu astaxfirullah ñëw ci alxuraan astaxfirullah fastaxfaru istaxfiru baat yooyu boo ko compté 34 la lay jox ci alxuraan te 3 ak 4 la 3 plus 4 7 la lay jox Seydi Aboubacar dudd nag maase ak téere boobu Seydi Hadj Malick tuddee ko Ababacar ni Saddiq Ababacar Saddiq mooy deuxième personnalité de boo nee Rasulillah moom nga ciy teg boo nee Seydina Muhammad Seydina Ababacar Saddiq nga ciy teg Seydi Hadj Malick tuddee ko doomam Seydina Ababacar bokk na ci ay ngëneelam keroog bi nga xamante ne si yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jóge na fii ci suuf dem rañaani ci boroomam dafa am ñetti xeeti xam-xam yoo xam ni yàlla daf koo jàngal yonent bi bu juddoo ñaata at lay def ci àdduna lan mooy doon mission am kañ lay faatu ba xam safara la jëm wala aljana la jëm suñu boroom xamal loolu yontu yàlla muhammad bi mu ñibbisee mu wax Seydina Omar ni ko yiw yi nga xamante ne si Seydina Omar am na ko bu ko Seydina Jibril doon bind dana bind ba sonn te du jeexal mu ne te benn tuyaabay Seydina Ababacar moo ëpp doole tuyaabu Omar yëpp kon kan mooy Ababacar kenn xamu ko kooku nag Seydi Hajji Maalik tuddee ko doomam mu juddu indaale ay yëfoo moo tax mu daan wax ne man Babacar añ laa boo xam ni

xut bi ak Maodo du seen morom de yaa warisal xut bi ak Maodo du aca bi ak maamam tiwu du sabay siqul masaiq fi wa taala wax ci alquran بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله yàlla ni ay yéen gaa gëm suñu borom bu ne yaa ayuhan naas kenn amul droit ñàkk a déglu parce que an naasu kenn génn ci mooy nit ñëpp waaye bu ne yaa ayuha lazina amanu gaa gëm la concerné mu ne ee eh, yéen gaañe gëm ragal leen ma man seen borom te ngeen uti wasila ngeen ut wasila bu leen àggale ci moom la nit yàlla waxoon ni ku dund ba dee ku dund ba dee te amoo fatxut ne dangaa niroog nit mais nitóori nga kon nitóori yi bari nañ neen <laughs> ku dund ba dee te amuloo fatxut nee na da niru nit rek mais nitóori nga yàlla ni kon ragal leen ma te ngeen ut bu leen àggale si man mboolem wasaa'il yi nag lu jiitu Maulana Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Chérif di ñëw ci jamono wulli yàlla yi lu ñu neew néew néew seen lim daan cent yegg 124 000. mais bi Seydi Cheikh Ahmada Tidiane ñëwee dañoo ubbi buntu bi amatul lim moom la sëriñ Haadi way ni te xam ngeen ni yoon wi sax ñëppay wulli yu fa sukkural li mawlaa moo leen di am loolu bu amee Seydi Cheikh Ahmada Tidiane Chérif moo tijji buntu bi Ousmane bun Aboubacrin Sadiq doomi Ababacar Sadiq ji ñu tuddee Seydina Ousmane wax ne xulubul awliyaa ilaha uyunun nee na bokk na ci li li tax nit ñi war a daw jege ji nitu yàlla yooyu tafu ci ñoom pour ñu àggal leen ci seen boroom mooy que ni ñoom nitu yàlla yàlla daf leen jagleel ci seeni xol ci seeni xol dafa am ay bët maanaam dañoo am ay bët yu ñuy gisee ci seeni xol bët yoo xam ni tara maa laa yaraahul mubsiruuna danañu gisee ci seen bëti xol yooyu loo xam ni bokkeewul ak li borom bëti kese kese di gis dégg nga wax ji nee na bokk na ci li tax nit ñi war a dem tafu ci nitu yàlla yi pour ñu àggale leen mooy ñoom nitu yàlla yi dañoo am ay bëti xol dañuy gis loo xam ni yow mi yor bët kese kese doo ko gis wa arwaaxun tatiiru bi xayri shakkin dañoo yor itam ay ruu yoo xam ni dañuy naaw ci lu amul benn sikki sàgga doomi Seydina Aboubacar Saddiq moo wax lii mu ne nitu yàlla yi dañoo am ay ruu yoo xam ne dañuy naaw ñu ne ko bu ñu naawee fu ñu jëm mu ne ila mahmuuri rabbil alamin nitu yàlla yi dañuy naaw ba baytul mahmuur baytul mahmuur kaaba la boo xam ne ma nga ñeenteelu asamaan bu ñu fa demee naan ca leer ya soog a ñëw nàndale baytul mahmur wax nañ ni kaaba googu ma nga ñeenteelu asamaan te bu doon wàcc respecte droit bi dafay dafay tegu ci kaaba gi kaabatullah gi yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis ne baytul mahmur bés bu jot juróom-ñaar fukki junniy malaayka dinañ ko wër buñ ci duggee dootuñu génn ba illaa yawmi diin chaque jour kon foofu la fa nekk ciy leer kenn xamul nu mu toll. mu ne ñoom nitu yàlla yi nag seen ruu yi dana naaw ba baytul mahmur boobu naan ci leer yi Mawlaana Cheikh El Hadj Omarul Fuuti Taal wëlluy wëlli yaabe cerno serlaabe sëriñu sëriñ si Cheikh Omarul Fuuti Taal continent bu ne yàlla daa coppati ci ci ci ci ci wëlli yu kenn koo xam ni moom rek mën na alimenter continent boobu mu jël Cheikh Omar nag def ko muy muy coppati Afrique mboolem wëlli yu nekk Afrique yëpp waaw Cheikh wax ne ni ma miinee mbeddi asamaan noonu laa miinee mbeddi suuf mu kon kooku kooku du como mu ne am na cent 313 bureau asamaan xam nga kon kooku fu ko neex fanaan moom maam Cheikh mu wax ni al waliyu kaamil yutla ala xulubil qasidina nee na nittu yàlla bu mat nitu yàlla bu mat waxuñu koo xam ni daa daa am kaala rek dafa làmb poosam poos ba fees mu dem kolobaan jënd kaala yu doy ñëw kaalawu jënd kurus junni per teg di tocc toccal waxul kooku al waliyul kaamil la wax nitu yàlla bu mat ñu ne ko waaw mu ne yut laa ala qulubil qaasidiina boo ñëwee jaayanteeg moom gaa yi gaa yi nga xam ne ñoo leen jublu ne nitu yàlla yi dañuy xam ñoom seen yéene képp koo xamante ne si sellal nga bi ngay ñëw ci ñoom nee na dañuy gis ci seeni bëti xol yi gis goo xam ne gis gu mat lay doon saa boo nekkee ci danger dañ koy xam boo nekkee ci yiw dañ koy xam la alaaji Abdou Aziz Dabakh radiyallaahu anhu waxoon maam alfa ni ko alfa mu ne ko labbayka mu ne ko sax leen ci njub de fu ma toll maa ngi leen di gis bu ngeen nekkee ci mooy yàlla rek la la bi di fóolu nit yàlla boo leen joxee loxo jaayante ak ñoom jaayante bi rafet fa man safaa niyatuwoo ku ci jaayanteeg ñoom jaayante bu sell circonstance boo nekkat dañ koy yëg Sidi xaaj Mbaye si radiyallahu anhu dafa toog Tiwaawan am mbooloo mu jiyee ko waalo ñëw ziar Sidi Hadj Mbaye def ay ay fan ci yoon bi bi ñëwee ziar ko ba seen ziar mat ñu toog dallu comme yoon wi dafa sori te boobu war waay yombul Sidi Hadj Mbaye yeewi leen mu ñaanal leen ñuy dem bi ñu génnee Tiwaawan la taw bi sóob diggante Kajoor ba waalo mboolem taw yi leen fekk si yoon bi seen yére tooyul amul benn topp ndox bu leen laal. te ñoo ngi dox di dem xam nga Seydi Hadj Maay kon kon Maodo grand-mère mu ne képp koo xam nag ñëw nga jokk ci ñoom te rafetal ni nga jokkoo ci ñoom dañu lay gis ci seeni bët yooyu gis gu mat saa boo nekkee ci danger dañuy taxaw waxaala seelu xaaj maay si radiyallahu anhu yaxfazuhu fi xaybihi ka xifzihi nee nitu yàlla yi ni mu lay ni mu lay sàmmee li mu lay aaree ci boo toogee ak moom boo ko jegee noonu la lay aaree tamit ci boo ko soree waaye nag day fekk wa fi fii laqzihi ñoom seen xol du jóg mukk ci di gendeeku di gendeeku taalibe yi oustaz dafa am bés Mawlana Seyul Xalifa Sëñ Babacar Si radiyallahu anhu yebal maam Mansour ak Baye Alaaji bu Saaxo gàmmu ñu dem ca gàmmu ga gàmmu gàmmu gi ba bët set 11h midi ñu ñëw di rendre compte sëñ Babacar ñu ñëw fekk sëñ Babacar Sy radiyallahu mu ngi toog yore yore yore morso yore musuwaaram di ñandu rek yow ni ko ah góor gi mbaat da ngaa xaw a soj mu ne leen déet wallaay seen gàmmu big gi dama leen a sëpp ba bët set lay bi yëpp sama kaw la ko lay ah doy na bu ñu la yemalee dañu lay teg bët Seydi Hadj Maalik nee na ni ñu lay sàmmee ci boo soree boo teewee noonu raw moo tax sëñ Babacar daan wax ni ñaari bët laa yor fekk maa ngi dund maa ngi leen di xoolee benn bi waaye bu ma leen wanee ginnaaw ñaari bët yëpp laay teg seen kaw lu sama njaboot nekkee ma yëg ko mu wax nag ni taalibe yi bari nañ te yàlla na yàlla nangul ñëpp fa ñu jokk yalla ben yaakar tas waye bokku na ci mandar gay talibé yi mune fala tara ahadan min ahlihi abadan Maulana seex sidi xaaj may si wax ni wa an wa an yakuna at talaqini talibé bi bëgg jaayante wiru ci sayyid cheikh ahmad tijaani sërif radiyallahu anhu te jox sa bopp Seydou Cheikh mooy jox sa bopp yonent yàlla Muhammad ndax diggante Seydina Cheikh ak ak yonent bi salaay salaam dara doxu si di xaaj maa ngi ne kon yow mi bëgg ñu sala wérd wi lu ñuy maye lu ñuy sala mu ne yow mi bëgg ñu sala wérd wi li ngay njëkk a doog d'accord mooy xaalin anil awraad yi bépp wérd bu dul wérdu seex da koy teg ci suuf parce que tarixa bi ñaar la gën a bañ jël wird wi boole ko beneen wird ak tox cigarette tarixa bi bëggul poon mu ne nga def ko nag bil yaqiini am ci kuulu gu wér ci ne amul dara amul beneen wird bu ëpp doole wird wi yontu yàlla Muhammad jox Seexu Tijaan wérde boo xam ne boo ko dee def yonent wi teew li sëñ Babacar doon wax néegu taalibe Tidiane daa war a rafet waaw ñu ne ko lu tax mu ne parce que jawharatul kamal boo ko jàngee ba juróom-ñaari per yonent bi dafay teew te fu yonent bi di teew nag sa néeg war naa rafet mu ne yow mi ngay tax mu teew itam war ngay sol lu rafet tey am soxna su rafet ñett yooyu la waxoon min al muridi tatlubul adaba dañu wax ni ci jaamu yàlla la nit di demee aljana waaye ci teggin la nit di gisee suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne kon faw yow taalibe cheikh bi nga am ay teggin dañuy sàkku ci yow pour nga am ay teggil bi ci njëkk mooy ñu ne ko yow wax ji nga teg wax ji nga wax si xaaj xaymaay fan nga ko teg mu ne fii xaqi cheikhin qaalahu al andaabu Mawlana Seyd Cheikh Ahmada Tidiane Serif moo sartal ci taalibe bi mu am teggin d'abord ci digganteem ak sëriñ si tarixa Cheikh dañ lay tere nga nga nga tëb rek rek tudd turu sëriñ bi te jiitaloo baatu Seydi Seydi Xaaj Maay baatu Seyid faw nga yëkkati ko soo ko indi tur yi ci tegginal leen mu ne lii nag ki ko wax mooy Seydina Cheikh mi nga xam ne moom moom moom daara ji mu ne critères yi bokk na ci asiduqu sëriñ xaaj maay nee na wa sidqu fa huwa zinatul nee na dëggu mooy taaru taalibe dëggu maam si Omar radiyallahu anhu nee na boo dëgguwul jarul ngay julli boo dëgguwul jarul ngay sikkar boo dëgguwul jarul ngay woor boo dëgguwul jarul ngay def dara ñu ne ko lu tax mu ne parce que premier escalier bi ngay teg sa tànk pour dem ci sa borom mooy mooy dëggu Seydi Xaaj Maay ne kon wa sidqu foofu zinatul murid dëgg mooy taaru taalibe ahazana allahu min al maridi yal nañ yàlla musal ci fetteerlu mu ne bokk na ci àqu taalibe yi ameel moroomu àqam wala moroomu taalibeem mooy yasalu an man xooba oustaz nee na surtout taalibe tijaan bi ñëw ci jàkka ji wala ci géew wasifa bi wala mu tok ñaari fan gisul moromam sidi hay may neen nang ko laajte xam naa bu doon ci jamono bi dana na ko wo telephone yasalu an man xaaba ko ci geje gis rek laajte ko parce que dotul mom bi mu jappé ci tarixa bi nga japp ci tarixa bi boba ngeen raf yeen xam nga kan la maulana si ahmad tidiane Sirif. cheikh la yalla jagleel moy wulli yu bo xamni ni bi nga ak mu xaddam bi mu jox la tarixa bi keroog la la yàlla di yéege ci maqaama sayyidina Cheikh booy jaamooti yàlla yàlla dootul xool Ablaye mbay muy jaamu mais Cheikh la lay xoolee. mu ne kon dëggu dëggu mooy taaru taalibe yasalu an man xaaba Sidi Xaaj maa yi nee na bokk na ci àq yi taalibe bi ameel moroomu taalibeem mooy taalibe boo gëj a gis na ko laaj tey muy benn te lii oustaz xadiisu rasulullah sallallahu alayhi wasaqimu taalibe woo xam ne digg nga ni dafa feebar sëñ xaaj Maalik nee na taalibe bu feebar yahuduhu na nga ko seeti koo ci yëg ni feebar na nee na solo sa dàll nga dem seeti ji ko kasa nii ma ko waxee ne man ruwiyal alimu kasa nii ma ko waxee man sëñ xaaj Maalik nii laa ko jëlee ci sang bi Mawlaana Seydi si Ahmad Tidiane mi aji xam mu wax ni bokk na ci àq yi tamit taalibe bu ciy dox ba daje moroom taalibeem mubtadiran na nga njëkkante almalqa nga sànni bi salaami ci nuyoo daje nga ak sa mbokkum taalibe nee na njëkkanteel nga nuyu ko asalaamualeykum wa rahmatullah eh taalibe cheikh nee na njëkkanteel yow nga nuyoo ko waaye nag boo koy def bul fas sa kanam wa bil bashashati nee na na ubbi sa kanam comme ni ko aadama Ndiaye defee 52 dents yëpp génn nga siiñ rien ni ko taalibe seex daal di koy kott mu kott la moom itam wa bil kalaam yi na ànd ak tamit wax ju neex mu ne itam war na ci taalibe bi temps yi mu foo toll del màggal sa sëriñ gis nga sëriñ xaaj maay si radiyallahu anhu sëñ Babacar li mu am ñaare ko ko may yam ci ñaar la ko liggéeyee bu njëkk bi mooy moom moo ko sonnal boppam li mu ca waroon a sonn moo ko sonnal boppam dafa tëju tëngéej junnee guddi ak fukki fan ak ñett njàpp li muy jullee géewee moom lay jullee fajar bu xësee ba croisé tànk yi toog du ko làqarte fekk fajar jotul ba siy naa Cheikh Ahmada Tijaan wokkatu bokku ci xadratu Ilaahi boo fa wokkatoo dañ lay dàq ilaha illallah <laughs> xadratul ilahiya la ilaha kan du wax benn nit yàlla day day rëkk di rëkk di rëkk di rëkk ba yegg ñu ne ko kookan la mu ne mën a diw ñu ne ko yow ak seegoo wàññeekul ñu ne ko diw amu fi mu dem laaj sëriñam ne ko la imaamul xasaali la mu laaj sëriñam ne ko bo àggee looy wax mu ne ko da nga naan buñ la nee yow akan da nga naan yow la yow man mënuma xam nga lu tax wallaahu xalaxakum wa maa taamaloona yàlla ni mu bindee suñu jëmm yi noonu la jëmmee noonu la bindee lu ñuy wax noonu la bindee itam li ñuy jëf sëñ Babacar benn mag ñëw ci moom ne ko ah si man de damaa jaaxle lu tax daal bu ma jógee sama kër ba bi may yegsee ci yow xale yaa ngi mbiitoo ko mballoo ñii di dàqante fii te yow boo nee tëll ñëpp lépp ne tekk boo nee tekk lépp ne tekk sëñ Babacar ne ko ah sirru bi nag maa nga ca salaatul faatiha mu ne ko rus naa di jàng salaatul faatixi di yëngatu fu mu toll rek yetta addabu ma alxaq allahu akbar kenn wéeru dul du mel ni moom akal kala masa man xaltuul bayta qaala salaatul faatixati تجاني عبد العباس قدوتنا وستفلح لها تتقى شيخ المشايخ تربان معنا الله تعالى وردانا بأمين لله والشافعي من مختار مصطفى من بدر واو خير البرية خير البرية في أهل Lima ibu sar musa wax di ma di la ciokatan te nan lan bul retan neena da munul mënul ne waaw ah, benn savant bu ñu wax ibu sar neena di la ciokatan te nan lan bul retan neena munul mënul <laughs> ay ma sha allah mu ne kon seigne babakar bi ci ñeek kon li ñi daj daj na ba wilayam feeñ Maulana Seyd Cheikh amadou Tidiane defal ko lim ko defal. bi ko ñaareel mooy baayam Seydi Hadj Malick Sy nee na ci himma ci himma mu ñëw dina la leen di jàkka jëndee ko di himmatu aw bi xaal ni mu yaree rafet na. yaslamul murida muridina min kasi lusuli ila nee na dafay nàndal ay taalibe ci kaasi leer. ndax ñu muraadi li ñuy xam taalibe bokk ci sëriñ si nga xam ne dañuy wan seen bopp seen i taalibe mais yàlla lay wan ay taalibe. souffrance ba taalibe Tijaan bi woon du metti loolu nag jëkk la boo xamante ni si suñu borom tabaaraka wa taala moo ko garanti leen di mu garanti seen taalibe seet yi bu ñu duggee ci seen biir bàmmeel du ñu gis dara loo xamante ni si xam nga nit ki buy def lu bon

nga ko boo ko ñoo nekk ci daayira bii nga xam ne mooy xayru xayru diin wala nuuru diin bokk macha allah dimanche bu jot ñu fay nekk président mu nekk seen biir président Alioune Sarr di gërëm itam suñu mbokk yi nga xam ne ñëw wuyu si ndax jotaay bi ay tiijaan a ngi fi waaye wax dëgg yàlla suñu mbokk yen yi ñoo ngi ko couleur ñëw sañse ànd ak yar comme ni ñu leen xamee ñoom macha allah te itam di jëkkat seen alal di joxe ñoo ngi leen di nuyu di leen di leen ziyaara fa tabaarakallaa di nuyu itam suñu mbokk xaadar yi ndax ñu ñoom it ñëw nañu te dañuy faral di jëlee ci suñu suñu papa Seyd Ahmada si Jamil yàlla na yàlla guddal fanam bu toogee nii rek. dafay wax ne ñoo ngi bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo ñoo bokk pas-pas te mooy ñi ñu bokkal diine te bokkuñu bokkuñu tarixa fa tabarakallah ñoo ngi nuyu suñu mbokk murit yi di nuyu ñëpp di leen ziyaara jotaay bi yàlla na ko yàlla def muy jotaayu yiw daje bi yàlla mu doon suñu mu mujjub daje képp koo xamante ne si indi nga fi aajo yàlla na ko yàlla faj ku fi indi jàngoro yal na ko yàlla saafara mag ñi yàlla na yàlla dolli leen sutura te yokk seen wér ndaw ñi yàlla na yàlla sàmm leen ñu àgg ni yoon ci daraja yonent bi sallallahu sa wa maa ngi jégalu maa ngi jégalu maa ngi lu baax waa daayira mu tax bii na fi la président Ibou Mbaj soxna jaara ñoom amul mox seen fay yàlla xam na ko léeg-léeg samedi mag maag Ablaye Mbay ñoo fiy nekk rek di tërërëri rek te wax dëgg yàlla ñoom ñoo baax rek daal yàlla na yàlla fay leen yëpp asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yaa ñu doy sëñ amul ahad man yaa ñu doy doo seen xalifa di gis si